yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwoon tey fii ci Ndiassane di sàkku si waaye di di di jaale waale aussi sunu sunu bàyyi sunu maam bii ñu ñàkk muy Cheikh Mouhamad Bou Kounta yan yàlla yokk leer ci moom ñëwoon fi nag fekk fi doomam bu tedd bi di Cheikh Mouhamad Kounta di taawam euh, sunu xarit sunu wóllëre sunu genn wàll di Cheikh Abdou moonu mooy sunu bunt ci moom muy bunt bu mag bunt bu am solo euh, ñëw bi ñu fi ñëw nag euh, sëriñ bi daal di def benn benn waxtaan waxtaan bu kawee suñu njort euh, daanaka waxtaan bi dugal na ma sax ba ma demaat sama xel tàbbiwaat ci programme bi nga xam ne lal naa ko ngir askan bi ci présidentielle bi danaa gën a yaatal pàcc boobu nga xam ne maa ngi ko réserver le tourisme religieux mais li ma gën a neex ci ci ci ñëw bi mooy kat doomu doomu sëriñ bi Euh, baaxee na ma fi benn téere bu maamam bind boo xamante ne ay salaatu ala nabi yu kéemaane la ca sëriñ bi bindoon ngir jagleel ko maamam bu tedd bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bi nag àjjuma la euh, wax nañu ci ay signes yu daje te yàlla nee na mi ngi waxanteeg jaam yi à travers des signes afin que ñoom ñu koy décrypter moo tax daal dinañ fi dellu si dellu si waat ndax moom kat sëriñ bi décidé na boole ñu ci biir njaboot gi mu nekk lu rëy di ci sant Cheikh Abdou moom mi nga xamante ne moom moo ñu dugal ci ci ci kër gi. Je, rends grâce à Dieu et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, J'étais venu à Ndiassan me recueillir, euh, présenter aussi mes condoléances à la famille de Cheikh Mohammed Boukounte. J'ai été reçu avec tous les honneurs par son fils aîné, Cheikh Mohammed. Euh, par l'entremise de Cheikh Abdou, un, un, ami à moi, un frère. Et le, le, le fils aîné m'a reçu avec tous les honneurs et a fait un discours magistral euh, sur la vie et l'œuvre de son vénéré père. Et nous a aussi à prier pour nous, pour euh, les échéances à venir et pour le Sénégal en général. Ce que j'ai retenu de cette visite aussi, c'est que nous avons un peu parlé de mystique, de mystique euh, autour de, du constat sur la mystique, de l'acceptation sur la mystique et de la compréhension sur la mystique. Euh, débat important qui parle de théosophie. Et il m'a emporté dans une grande réflexion qui m'a même poussé à comprendre davantage que je devrais, dans mon programme, inciter, insister sur la partie du tourisme religieux. Euh, le, le, le fils du calife a accepté aussi de euh, ce grand privilège que j'ai demandé de faire de moi un membre de la famille. Et d'ailleurs, j'ai décidé, Inch'Allah, dans les jours à venir, de revenir puisqu'il m'a offert euh, un livre merveilleux de poésie écrit par son grand-père qui sera un des livres de mes cheveux, Inch'Allah. En Wolof, euh,